jërë nga jëf mbokk yi ñoo ngi fii ci Angleterre ci dëkk bu ñuy wax Leeds mbokk ki ngi taxawal mooy cukk li ci ngël ak acteur film bu mag la ci réew yi nga xam ne ay réew yi nasaraan la mel ni Angleterre gi mu dëkk Canada Angleterre ak France ay promoteurs yu mag di ko woowee fii Angleterre mu fi jugee di dem ki seen dëkk di fa def ay film yu am solo nekk rek suñu mbokku gambien waaye nekk Faramareen bëgg président Wally Ballago sekk ba amul ci moom sago ñu bëggoon sëkk ak moom ay baat ak tontu yu gàtt asalaamaaleykum Cukkuli mon ami maa ngi lay ziare. delloo naa maa ngi lay bëggee Cukkuli ci ngël comment tu nii rek sant yàlla. baa yaa ngi ci jàmm. sant yàlla fi bëri. mais doom de naka film yi fu mu toll. ma ne ñu ngi si kawam ñu ngi yële rek may woon Canada di def benn. Ah. dafa am dama fa am benn production company. Mm-hmm. so dañ mm-hmm. war a génn taay. ñu ngi si mm-hmm. mais li bëgg xam mooy da am label de production boo xam ne ñoom ñooy tourné di déplacé wu di dem fii tey bu subaa fee gannaaw suba fële wala producteurs yu mag yi ñoo lay soxla convoqué la nga ñëw joué leen. Well, Director Rimaki Dagmade wo ñu waxal suma manager ak suma agent pour ma dem jiwel leen waaye man tam am na benn business bu ma am ak benn actress Canada foofu ñu ngi am suñu production company tam maa moom très bien mën nañu xam instant bi ci yan projet nga nekk ak téléfilm yi ngay def. waaw fi mu nekk nii comme yi ma wax yi ma mujjee def mu ngi post production at this time fi nekka ben film festival la ñoo waram Canada February ci yoy lañ nekk di dox. mais yow au niveau de série rek ngay jouer ay film Angleterre Canada Amérique France do tax do jouer Afrique. non na des jouer Afrique. ah bon waaw da des jouer Afrique amna ben pour bu ma defoon taay yële di la si cor Mm-hmm. bu turon kooru Halima Senegal fofu très bien. ma ñom Bokar ay few seconds la fa defoon nii rek. très bien. waaw so dafa des rek tam fu ma gars woo su ma gars yi soolee Sénégal daa ñëw Sénégal. macha allah yow daal ni ma ko déggee film moo la ñor liggéey la ñor sa métier la. exactement fu la waay woowee fay la lu ko jar di nga ko dem joué ji incha allah. waaw exactement jërëjëf Cukkuli ci ngël Cukkuli ñu ñëw ci. li nga xam ne mooy sorti albumu président Wally Ballago Seck le 6 octobre. Mhm. président Wally wala a génne album international. Mhm. sunu mbokk Gambien yi jël ci engagement yu doy waar yu doy waar yu doy waar. yow ci sa jëm bopp rek li nga jënd ci ay CD mënuma ko wax doomi aadama te dara waralu ko lu dul jàppale président Wally ak sopp ak bëgg ko jënd may sa waa kër may ñi nga liggéeyal fii au niveau d'Angleterre waaye yónnee sa mbokk yi ci Gambie jënd nga lopp 100 CD ngir jàppale ko président Wally Ballago Seck Cugali diggante sa euh, Gambie ak Wally lan moo ci dox. waaw yow kenn réelé wu ne Sénégal yëpp benn la. benn mm-hmm. bopp la mënuñ koo Wali Sunwali. Mm-hmm. Wali Halillah. He's very, very talented. Mundali Modef. ba pare tamit yàlla may ko mm-hmm. affaire yi dañ dee ku yàlla taacul rega boka boo Wali taacul si Wally mm-hmm. star la mu wali ne di def lu te Wali, sax ne Sénégal la because Wali Wali Africa la très bien Wally su ame disk d'or Africa ñoo am ndab. not Sénégal not Gambia. Mm-hmm. so lu si waay mën a def pour jàppale ko rek nañ ko jàppale because comme ni ma koy xaleel la and he's got the world around him so yàlla na ko si yàlla may ndam. ba pare tamit li si mu yëpp dinañ ko si jàppa pour make sure ne happen mm-hmm. macha allah ni ma gisee yëfi daal mooy disque d'or bi disque d'oru Afrique la waaye Gambie moom takku nañ ba dëgër nag kenn du leen cëppale. non non Gambie kay ñoom saa yu waali jógee ñu jóg. très bien xam na loolu sax moom ne Gambie di dafa am fu ñu ko teg. très bien soo buggee yëngal Gambie rek waxal ci riwaay. ndeysaan ndeysaan ndeysaan loolu cofeel la loolu yëg-yëg la loolu fonkeel la jërëjëf cugli ci gël waaye ma yëgal sénégalais yi ne kii ma doon waxtaanal man Omaro porte parole balaa Ballago Seck président jàmmi réew mi kii suma xarit la nit ku yàlla baaxal la fii ma nekk ci Angleterre déplacement bu may def mooy dagg billet d'avion yi mbaa dagg yi hôtel bu may dal mooy ñëw fay ko ak kartam na ma dëkkal dalal ba mu neex nga dem sa yoon te moom xam na ne président Wally Ballago Seck li war ci man lépp def na ko mais def ma ne lu président jox dafa sa poche te noos li res nga bàyyi ko ci sama loxo maa koy doxal maa koy gérer ba mu baax kon cukkale aw ma sa fay a jërëjëfati marxaban bikum shukran jaa jëfati